tey teg li centre de formation pour gardien de but lan lan euh sabab mir moomu noonu ba nga teg ko lan moo nekkoon sa objectif ak ban jamono itam nga ko contexte bi. bon loolu ma ngi dam 31 décembre 2002 la am fracture 31 décembre 2002 maa ngi jógee euh, stade amitié entraînement mhm. def euh, euh accident de circulation sama tag bi dam 2002 2003 2004 ba légui wéruma 2005 ma bon pourquoi pas. comme am na góor yu ñëw kër ga di jël ay not ay ñoom jaabi bi doon góor AS Pikine ay ñoom mm, góor jaraaf bi Mamadou Ba ma ne pourquoi pas lii mën nga ko créer centre Kër Massar ma créé benn centre de formation des gardiens de but ñi ma njëkk a dañ ne ma loolu mënul nekk mais man comme man yàlla dafa dafa ma dimbali noonu laa mës a mel mhm. dama am mentalité am gëm-gëm ma ne non lii day nekk mhm. ma bind foofu ci mur bi centre de formation des gardiens de but à Kër Massar ci benn mur mhm. démarré ak six gardiens ay ñoom Pape Demba Camara ay ñoom Mamour Ndiaye ba yàlla def muy pousse di pousse di pousse ni ñu naan kii day tardel booy kii li muy def nii impossible la man la man la laa bay dégg impossible. Mhm. lépp mën a nekk. Mhm. li ko taw yi waxee tout début est difficile mooy pousse di pousse ba yàlla tey def tey centre bi am tour ba mhm. àdduna bi di ko dégg ba nit ñi di ko toppandoo. waaw loolu mi ngi créé Kër Massar. voilà en 2005. 2005 nan la centre bi di fonctionner maanaam Euh, beaucoup ci centre bi en plus nan ngay tagaté euh, gardien yi. waaw bu njëkk ba dañ ko doon def gratuite. Mhm. comme niñu gëmuñu ko won ma def ko gratuite. Mhm. ku ñew ñu jox la lakos bu noir def ci centre de formation des gardiens de but publicité par de fois lakos yu manqué ñuy summi di passanté di photo di ko ubbi suñu page di pousse di pouce di pouce di pouce ba yàlla def tay centre bi légui amna inscription 20000 mille. bo boo ñëwee inscrit vingt mille. Mhm. jox ñu jox la uniforme. maillot flottant jox la benn fiche nga remplir ko sa famille gis ko nga ñëw fi adhéré chaque jour nga ñëw ci stade bi di entraîné waaw fi lañuy entraîné chaque jour ay groupe la quatre groupes la ñu am ñaata joueurs plus de deux cent trente gardiens mhm. quatre catégories mhm. quatre catégories la catégorie bi kii yore ak bi ma yore ak bi mbay yore ak bi tafaa yore ak bi ulay yore maanaam catégorie bu gën a ndaw ba gën a mag waaw mhm. banque ñoo yoré mag hmm ñeneen ñi suñu adjoint yi ñoo yoré yeen boy tay normo noor entré dem nañ légui suba bleu moy ñew ginnaaw suba orange moy ñew samedi dimanche élève yi ak petite catégorie samedi dimanche amul xaj dek sen manam partout au Sénégal fep fu gardien nek mën na ñew bokk non xoolal Diourbel Casamance Vélingara Mauritanie fo le la góol di jóge di adet partout au Sénégal partout am nañu jóge Guinée tout récemment ñew fi

Mm-hmm. defuñu ko pour Kaana defuñu ko pour keneen club yi nag Sénégal amul benn kuy taxaw ne amu fa Kaana joxuñu góol. parce que da ngay def itam euh, suivi bi maanaam da nga leen di jox ay gardien boo formé ba ñu. club yi nag Sénégal ñëpp ku ne jox naa la góol. yi mm-hmm. nekk Sénégal boog soo bëggee dëgg-dëgg Teungueth FC Jaraaf petite catégorie senior AS Pikine Saloum Stade Thiaroye Lusitana Oslo Darou Salam Teungueth FC ñëpp laa jox góol.

binañu benn protocole boo xam ne góol bi su jaree fii sar mhm. bi dina am pourcentage par des fois nga am problème ak ay ay président mhm. par des fois nga ay ay euh, ay ak ay président yoo xam ne saa dañuy conscience lii dafa war nekk parce que Kaana tamit yàgg na sonn fii jënd ay ballon jënd ay statut di alterner booy defar ay loisir mhm. mais am ñoo xam ne boo ne leen booy bi balaa moo góol ngeen jox ma six ballon wala cinq ballon ñoom pour ñoom dañ naan non il faut ñu xaar bon nanga ñu ci bëri nag du ma bëgg a yàqal booy bi di ko téye mais été attaqué président bi parce que équipe dañuy regroupé dañuy jël car voyage dañuy fay salaire dañuy jënd ndox mais salaire. leen laajee ballon pour ben gardien ak gardien commencé zalo am si souf am ñuy wax souf non ni mel ñun li ñuy def ni amul autorité ñun li ñuy def ni mhm. Sénégal ku ci ne dañuy gis sa bop ku ci ne dañuy gis sa bop muy petit ont muy lépp ñi fi entraîné ni Nous Moussa Badiane mhm. midi lañuy midi. ñaari góol laa ko jox mm-hmm. booy jóge nañ Dakar ñëw toog di xaar moom la ñuy xaar mm-hmm. tey jii loolu laa mën yóbbu booy si club yi ñuy jouer mm-hmm. mais gars yi président club yi ak ñi nga xam ne am ay moyens même bu ñu moyul dañu xam ni góol bu dem si kaana war nga génne benn benn somme bu ndaw wala nga génne benn matériel teg ko ci loxo centre bi parce que centre bi loolu mooy tax mu avance bu weesoo jafe-jafe boobu est-ce que am na yeneen jafe-jafe yooyu yooyu ak centre bi waaw jafe-jafe yi may rencontré mooy comme li ma da ngay jox équipe góol ñu am match amical nga ànd leen góol. Mhm. góol bi damm nga ànd leen góol ñu eggal seen entraînement. ñu am problème ndox nga may leen ndox ñu am problème pompe nga ànd leen pompe. ñu xëy suba dem si directeur bi naan ko kaana bu ñuy jouer ginnaaw kaan yi day nekk di ñu déranger man loolu dafa ma métti loolu dama bëggoon wax ko publiquement ñëpp dégg nañ conscience yi centre bi du pour kaana pour Sénégal la. Mhm. ku ci nekk am nga góol boo xam ne fii lañ lay tàggatee ba yàlla def la nga nekk góol. Mhm. nañ conscient xam ni stade bi nii. couleur terre bi ak couleur stade bi c'est est différent mhm. couleur terre bi da nga yam sa terre ñu ñu entraîné suñu ginaaw camp mhm. couleur stade bi nga tej porte yi wut say gardien ku ñew ñu ko mëno dugg mhm. mais mënoo le terre bi di invité nit ñi pour ñu entraîné fi ci stade bi lool mënu nek stade bi ma ngi lancer appel amul kenn ku kuy xalat ku dul maire bi ku may arrêter fi pour ma bañ entraîné parce que 95 la fi nek di jouer ba tay ma nek màgget mak sama collègue bi créé suñu centre bi nit mënul wax ba stade bi duñ fi dugg di entraîné d'accord d'accord